auzubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk téléspectateur seen média asalaamaaleykum mbokk xarit Abdou Thiam asalaamaaleykum képp ka nga xamante ni yaa ngi safoo seen média di toog à chaque fois di ñu seetaan di aimer di commentaire di ñu encourager foofu laay jaaree dugg ci kër kilifa diine yi di leen nuyu di leen ziyaar di sàkk si ñoom ñaan di leen ñaanal suñu borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te wér jóge ci kër kilifa diine yi dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi dugg ci ñi nga xamante ne ñi ngi am amee maladie tëdd seen kër di leen ñaanal suñu borom fëgg seen bopp wéral leen yàlla teggi tawat gi leen jàpp noonu ba ba ba mu bañ leen dalaat jóge ci hôpitaux yi dugg ci biir prison yi di ñaanal ñi fa tëdd te jombul kenn képp ku nekk ci prison bi am na ñoo xamante ne dara dugalu leen fa am na ñoo xamante ni thème bii ñu nar a développé moo leen fa dugal yàlla na leen fa yàlla génnee ñu bañati fa duggaat ñun ñii toog di leen ko ñaanal yàlla nañ ci suñu borom musal musal ci bépp mbooloom jullit foofu laay jaaree tamit itam daal di nuyu ñii nga xamante ni su ngeen ñu gisee ñu yànj mën a toog fii si plateau bi di def émission ñoom ñoo tax mooy ñi ci ginnaaw caméra yi muy waa di nuyu Gora di nuyu Nestor di nuyu Joli Caba sonn nañ ci liggéey bi yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla taxaw ba lii ñu mbëbët ñu dem ba duñu seen fu kawe kawe kawe di nuyu suñu PDG Moustapha Ndiaye nga xamante ne yàqu ci dara moom mi ñu yaatal bàyyi ñu fii ñuy commencé def lu ñu neex nee naa leen avant émission moo dàq souvent émission bi ndax lu ñu neex lañuy def fii ci kër gi te du pipe mu gis ngeen boo ñu gisee rek xam ne dañoo nekk à l'aise ndax dañ ñoo yaatal yàlla na jàmmam yàgg di nuyu Dabzo di ko wax nag namm nañ ko tey ndax tey dafa am lu ko empêché tuuti moo tax ñëwul di ko wax namm nañ ko foofu nag laay jugee nag ñëw ci thème bi nga xamante ne tey dañ ko defoon bii paase mu daal di yëngal lu baree baree baree bari ñu jot ci ay appel yu bari jot ci ay message nit ñi di ñu woowe fu nekk ci àddina bi di ñu wax thème bii ngeen thème bu yeboo ngeen continuer ko ku ci nekk joxe ci exemple ku ci nekk wax ci li ko ci metti ku ci nekk ne dund na ko sama bàmmeel laa tiim lu leer laay wax nit ñi dañ cee gis seen bopp bu baax kon nga war a xam ne thème bi am na solo yëngal na societé bi yëngal na àddina bi yépp ndax seen média daa wër àddina bi yépp fépp ñépp a koy seetaan moo tax ñu ñëwaat tey pour continuer waat thème boobu muy tuuma waxoon naa leen ko ci njëlbeen bala paase muy tuuma di loo xamante ne tuuma du wàllu gor képp ku ñu tuumaal ba ren di déwén ki tuumaal nit ba ren di déwén te gisu ko nga xam ne yàlla amoon kon nag tuuma boobu nag lañuy ñëw pour yeggali ko tey fii ci seen média suñu émission seen société ma am ci sama droite Dieynaba Ba sama tukkuleer tukuleur samba jaari nawaa noon la toorodo toorodo sama ngaari jamaan toorodo samba ngaari jamaan mu ngi nii torodo bu olofe la nag tukuleur bu rax leboo ngi nii toog tu couleur bo xamanteni Alam lebu la Alam lebu bo bu la ko waxul doone couleur <laughs> la. tukuleur lébu la tukuleur lébu la wa mi ngi nonu muy Dieynaba Ba may pël may pël lébu waa. jee ngi lay nuy def. fayna la jorjo ci lo nek mbaa yaa ci si ma sha allah alhamdullilah ma bàyyi la nga nuyoo. waaw jaajëf ma ngi lay nuy Dior jorjo ma ngi lay fay. sama rak ji aisha mhm. di nuyu waa régie di nuyu suñu cameraman ni di nuyu borom kër gi njaay ñu ngi lay nuyu bu baax suñu grand bu baax ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa aada yee kilifa diine di ñaanal ñëpp yal na yàlla laf cat yal yàlla def jàmm yal nañu yàlla yokk ba ñu yëg ko di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni ka xaar leen ñu fii ci seen média ci seen biir société mm-hmm. ndax ñu ngi ñëwaat ci thème bu am solo mooy tuuma mm-hmm. defoon nañ ko fi mu neex ñëpp wax ci ku ne gis ci sa bopp mu war a continuer te xam ne loolu buñ ko defee sax dix thèmes taxul mu jeex ndax ku nekk ak liñ ci expérience expérience yu tegu donc euh, bu leen quitté toog leen ngeen seetaan surtout dem ci page média ngeen partager, ngeen abonné abone leen abone leen ngeen di ñu partagel di ñu aimer di ñu seetaan di ñu suivre di ñu suivre di ngeen am yu neex yu nekk au topp yu bees tàkk incha allah. incha waaw kon nag moo ngi noonu seen nuyoo ngi noonu. nuyu na borom si ngom bee wax ak yéen. tikkiloor bi nuyoon <laughs> <laughs> na borom si ngom bi nuyoon na. tukkuleer bi fay nañ la bu baax dafa neex émission baa ngi nii zéro stress la dund mi ngi noonu ma ñëw ci sama sama gauche am sama rakk ji Aïcha Ndaw Aïcha namoon nañ la ci loo nekk dañu déggoo suñu bule yi naa ah, ah, loolu rafet na xol day ah, gisee mi ngi noonu ndaw saa ndeene aram faxa borom dëkku maan déggal li noonu la koy defee ma bàyyi la nga nuyoo maa ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay Jeeba maa ngi lay nuyu fay naa la di nuyu sama jëkkër ju ñaaw ji dafa njaay ah di nuyu sama wujj bu ñaaw boobu maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu ñi ci paroisse bi di leen ñaanal ci seen fet premier mais bi ñu génn maa ngi nuyu ñëpp nuy sama waajur yi di nuy sama pap sama xarit nuyu naa ñëpp ziar ñëpp di laaj ñëpp ndax yéen a ngi ci jàmm nag tey émission bi dafa alaa mi waaw ndax tey tuuma la indi loo xamante ni dafa ne ci biir kër yi ci biir koñ yi ci biir gox gi waaw tey waaw ci àll bi yëpp la nekk tey ci loolu lañ loolu la ñëw topp bee paase ndëgam damaa xawoon voyage moo tax bi paa ma ñëw ndax dama cee am wàll moo tax tuuma dama cee am wàll <laughs> Aïcha daf cee am wàll nee na ci tuuma loolu dëgg la dañ ko koy nagul moo tax émission bi tey ñu continuer waat ko ndax dañ ci am retour yu baree baree baree bare nga war a xam ne nit ñi sonn nañ nit ñi taay nañ amuñu fuñ ko jooyee fii nag ci seen média ci seen émission seen société fii lañ koy wasaaree nag tas ko ba mu tasar nit ñi jariñu ci ba képp ko nga xamante ne tuumaaloon nañ la yàlla na nga joxe fii gis ci dégg ci loo xamante ni gis ci loo xamante ni dina la apaiser bu lépp mënul faju it dina am lu mu ci wàññi ci lu la metti woon léegi dañuy ñëw ci tuuma waxoon naa ko bi passé tuuma da di loo xamante ni day mbubb boo xamante ne loo sol sa yaram jotu la ngalla bu ko solal koo xamante ne waxuma leen sax ku ku ku tollook yow mais nit ñi dañ koy jël solo ko koo xamante ne moo la ëpp nga xam ne loolu teguñu ko fenn teguñu ko fenn ndax nit tuumal nañ ko ba mu génn àddina dem ñu bëree suul nañ leen te fekk tuumaa leen yóbbu ndax xol dara xaju ci lu dul bànneex loo ci def lu dul naqar rek naqar goo xamante ne yow teguwul ci dëgg teguwul lépp lu yàlla sàkk lu yàlla bind loolu day metti nit am na ñoo xamante ni ñi ngi ci prison bi tëdd ci prison bi te tuumaa leen fa dugal li leen fi li leen tëral ci prison bi du dara lu ci am dëgg sama benn xarit rek bi ma émission bi paase woo na ma ne ma sama frère tuumaal nañ ko tëj ko prison mu tëdd penam ba génn te liñ ko tuumaal dara nekku ci dara du ci dëgg ba bi mu génnee ñun ñun assisté nañ ko defal nañ ko lu nekk taxawu ko toppatoo ko pour rek bëgg loolu ñu ko tuumaaloon ak prison ba mu génn génn ci xelam génn ci boppam mais mujjul antu ba noonu la génnee àdduna ma ne ko looy wax nii mun ne ma wallaay azim noonu la génnee àdduna supporté wul liñ ko tuumaal ba dugal ko prison jéeba loolu nekk lu doy waar gis nga tuumaal nit ba tëj ko mu tëdd prison tëdd penam ba génn ndax justice kenn du xeex ak moom buñ la nee lii la rek dangay ngay mujj topp lool ndax dañ ko fekk loi la nga tëdd ko ba génn supporté woo noonu ñu la tëjee woon ci prison bi nga mujj tëdd di ko misère di ko misère ba faatu te ki la tuumaaloon mi ngi fii di la gis ñëpp xam ne peut-être loolu nga supporté wul ba génn àdduna loolu pour lantam dëgg la waaw yaa joor xam nga nit boo deful dara ñu jàpp la am fuñ la teg tënk la mhm. injustement dafa metti ndaxte prison ñëpp xam nañ dafa metti yàlla nañ ci yàlla musal ñi fa nekk it yàlla na leen fa yàlla mm-hmm. jëlee ci jàmm ak salaan mm-hmm. ba ñu bañ fa duggate mm-hmm. waaye nag defoo waxoo ñu tuumaal la ci yaama neex xamuñu ndax dañ leen yóndi xamuñu ndax neet ki neexu la xamul ndax dangay déranger ñu tuumaal la noonu rek ngir bëgg-bëgg àdduna ngir àdduna ngir ngir ngir ngir rek alalu àdduna ñu yàq ci sa àdduna noonu xam nga loolu tamit metti na te gis nga prison nee naa prison yi muy 100 mètres muy camp pénal am na ñu bëri ñu fa nekk ñi nga xamante ne dañ leen tuumaal defuñu dara defuñu dara moom laa lay wax dañ leen nga gis ki nga xamante ne yaa ngi ko yar ci biir kër gi wala mu ngi ñëw jàng ci biir kër gi neexu la wala bugguloo ko ndax dafa am ñi nga xamante ne yaatuwuñu ñoom seen kër même boo yaroo rek la sax le fait que nga nekk seen kër rek duñ ko mën a supporter donc dañ lay tuumaal mun nañ jël rek nga gis exemple rek nit ki nga nekk xale bu góor rek ñëw di jàng ci kër gi mbokk bu sori nga ñëw foofu di fa jàng wala dara ñu tuumaal la nit ki bu fekkee rek benn kooba la ñëw ne yaa sàcc samay or mhm. dañuy jël or yi yóbbu ko takkal la mhm. dañu tëj la ci ba yaax sa àdduna yàqu te consciente ñu wala conscient wuñu ni que kii lii ma koy def nii maa ngi yàq adunam te ci aduna rek lay yem mhm. te après aduna dafa am te foofu amul amul wërsëg amul ndey amul baay amul juddu sa jëf kese moo la fay moo la fay teg fi nga toog fépp foo toog foofu sa jëf kese la mhm. donc fii mooy affaire bi mhm. donc nit nit euh, nga bañ ko wala mu lay déranger warula jaral ba nga jël lu diis nga teg ko ci kawam mooy li ma la waxoon keroog doomu jàmbur ku ko yàq da nga koy jurul doomu jàmbur ku ko yàq danga ko juróom boo ko juróon dinga ko boot di nga ko rogganti. mais du noonu ngay doxalee. ndax lan àdduna. parce que dañu jël seen doom yi sang bam set boot rogganti jël doomu jàmbur téye ci nga ma di diri. bonal ko tuuma amul. xam nga foo dégg tuuma mooy euh, injustice mu ngi ci mooy dañ laa tuumaal dara xam nga tuuma fu ñu ko dégg rek mooy dañ la waxal dara te lu ci ëpp amul loolu dafa metti nit même bu la defee dara booy fayu wala boo ko bëggul am na xëy na bokk yow boo demee ba yor xol bu bon ba mënoo koo muñ am na neneen noo ko mën a régler nu dul noonu parce que tamit ki ngay jàpp di ko def noonu doomu jàmbur la te moom tamit am na vie bëgg na jabar wala bëgg na jëkkër bëgg na ay doom bëgg na am ci alal yi bëgg na am ci lu ne nga jël ko noonu rek pour dee détails yi nga xam ne sene n'est même pas la nga tuumaal ko ci ba yàq àddunam wala nga yàq ci image am pour rien du tout loolu lan moo ko jar lan. ba ci bi ñu bi ñu libéré détenu politique yi rek mhm. koo ci seetaan même chose la lay wax dama leen dama romb sol sol mayo senegal ñu jàpp ma sama téléphone laa yore ñu gis photo photo photo Ousmane Sonko ñu tuumaal ma jàpp ma ñii sama kër lañ ma fekk tuumaal ma ne maa wax lii maa wax lee ñu ci bëri mhm. ñu ñu libéré ñëpp kenn waxu ci ci ñi ma seetaan man mhm. amul ku ma ci dégg ku wax loo xamante ne jar na ñu jël la nëbb la jant bi prison dafa metti loolu bu fekkee da nga am faible d'esprit mhm. yow tu ne pas fort wala forte mhm. am na nu lay tuumaalee am fuñ la tënk wala am image buñ la jox wala am nuñ lay xoolee rek mhm. yow boo fortul rek wala nga foor rek dafay am lu mu lay gàllankoor soit que ñii da di feebar ñii da leen di teree dem ñii daf leen di tere évoluer ñii dañu fay jaare am benn complexe ci seen digg nawle te fekk ki ko tiwmaal mu ngi foofu toog di ko xool te fekk moo ko yàkkal te moom leer na ni bu tëddee guddi mhm. mu taxaw ci bàmmeelam li mu lay tuumaal yëpp dara amu ci mais man man je me dis nit naka ngay amee xol rek xool nit rek tuumaal ko rek yàqu ko rek waxal ko lu amul rek pour pour rek le simple plaisir wala rek pour pour diviser pour mieux régner rek man laa xamul nit da ngay gëm sa bopp loo am ak loo ñàkk am gëmal sa bopp te xam na yow loolu la la yàlla jagleel yow la dañuy fàtte benn affaire wërsëg dafa am fu mu yem te ku nekk ak sa wërsëg mun nga doon doomul ku mu munti doon bu fekkee sa wërsëg lii la loolu ngay am donc nit ku nekk lu mu am ak lu ko yàlla jox yéene ko ko nga bàyyi ko ak boppam même soo ko yi man nee naa man nee naa même bu fekkee bëggantewuñu wuñu nañu respectante ku nekk yem sa place mhm. ku nekk am sa dignité ak sa personnalité téye sa bopp mhm. am na ñi nga xamante ne dangay bañ nit ki ba mu lay jaral nga koy tuumaal lu ne nga di ko ko waxal gis nga nit ki soo ko bañee yaa joor ba mënoo koo supporter danga koy won gannaaw nga bàyyi ko àdduna yëpp xam ne kii bàyyi na kii parce que supporté wu ko waaye yow bu supporté woo nit ki fu ñu la fekk yaa ngi ci deram bi di ko tuumaal di ko waxal lu bon di ko waxal lu ñaaw di ko waxal yu salte yi nga xam ne yàq nga image am ci àdduna yëpp yëpp yëpp yëpp mm-hmm. parce que la neex la rek neex la nii rek wala yow waxkat nga rek yow wéroo. Hmm? mais yàlla mais yàlla yaay yàlla des fois dafay nekk dafay nekk ci téléspectateur yu mag yi des fois mooy téléspectateur bu mag bi dafa am fu mu yem kay waaw mais léppay jeex léppay jeex dafa am fu mu yem yàlla day seetaan te yàlla ki mu gën a bëgg kooku la gën a mën a toog di ko xool nii xool di xool naka ngeen di mujjee ak moom kirloo ci moom nga gëm ko rek mu jàppale la gëm ko wóolu ko waa jeex na jeex na jeeba sa contribution am na solo wax dëgg yàlla xale yi dañoo pare <laughs> Aïcha. Dior loo xam ci tuuma ya. Ah, tuuma moom lu ma ci xam dafa bari na néew na. Mhm. kon jeeba fu mu ko waxee fa laa koy fu mu ko daggee fa laa koy tàmbalee. lu muy nee par yenn saa yàlla day toog di seetaan. Mhm. dëgg la yàlla day toog di seetaan nit ñu tuumaal nit. Mhm. kon yaajo nu nga ko waxee dugal ko kaso nga génn dangay dem ba xat ci àddina. yow sa dund dootoo bëggati dara dee rek nga ciy gis. ba génn génn gàddaay. yow doo gis lu dul tey ji yàlla na la jël. par saa ñu toog ba nga dee ci ndax la ñu teg sa der loo xamante ne antanoo ko mm-hmm. tey jii tuuma mooy nit koo xamante ne da gis nit di dem xamaloo ko xamaloo ko dara yow daa gis na ko romb na gàddu na saagam romb na dugg na lu lay njëkk a la mm-hmm. yàq sa der yow léegi yow dangay romb nit ñi naka nda yow sa der yàqu na too doo xam yow tuumaal nañ la ci lii mm-hmm. tuuma mooy nit loo xamante ne dangay nekk ci biir kër di lu ne nga ciy dugg ndakante yow kër gi nga nekk ñu ñooy sàmm nañ la fa yàq nañ la fa te benn nit moo lay gis bañ la ñee la ndax lan soo soloo lépp ci lépp ci loolu la rek teraanga àdduna rek tuuma yëpp teraanga àdduna teraanga yàllaa koy joxe yow sooy dox calculé woon nit ñi ndakante yow sa dara ngi yàq te yogoo ko hmm, mais lépp dina feeñ tuuma mooy nit loo xam te ne ci sa famille lay njëkk a commencé lañu lay njëkk yàkkee hmm. yàqee hmm. gis nga àdduna bi mooy ni nga ko waxee dañoo war a nawlawante dañoo war a bëggante pourtant Sénégal dëkk bu war a neex la mais du neex. ak a neexoon nag ndeysaan yàqante bi dafa bari. léegi ñëpp a ragal. ñëpp a ragal ñëpp nit ñi dem nañu ba buggatuñu àndandoo buggatuñu xarit. Mhm. sooy dem yow kase sax di nga gis koo xam te ne mu ngi toog spécial xam nga ñoom lan la ñuy xëy. Mhm. xëy ndékki ci mbedd bi lañuy toog añ foofu lañ leen di woowee Sénégalais talatuñ sies wayaan attaaya wayaan attaaya teg attaaya ci mbedd bi ku romb waaw waaw loolu xale yi defatuñ ko sax ndax xale yi amuñu jot xam nga lu tax xam nga bu njëkk ba bu njëkk ba dangay xëy yaa ngi sa biir kër lépp dañ la koy lijjantil àndil la ko xale yi léegi dañoo woote takku ba takku ba dëgër lu góor am ñu bëgg koo am bu njëkk ba da nga daan nekk femme dépendante di dépendre ci góor lépp dañ la koy indi léegi balaa góor di la indil nga dem jéem a ñafet sa bopp ndaxte léegi bañ nee góor baax na jigéen baax na ba tey ndax boo deful sax pour yow sa yow ak sa jëkkër sa jaboot am nga yaay am nga papa am nga ay sœur kon il faut nga jug daw ñafe pour boo jàppalewul sax sa say jëkkër rek say njaboot sa sa yaay sa pap ndax niñ naan ko jur doom am nga yaakaar ci moom li nga def ci moom ba mu manque yàkkamti nga mu màgg ba jàng ba tekki ba même bu tekkul si jàng bi sax tekki ci beneen boor ba dimbali la secouer la secourir la moo tax suñu maam yi daan teel a jël soxna teel a am njaboot bu ñu demee ba am yenn âge ay 40 ans sax da ngay gis sa taaw commencé na liggéey ba di aw paa bi ci biir kër gi moo amoon mais léegi jigéen ñi sax seen bopp ma duñ ne sax damay faral jigéen ñi jigéen ñi sax léegi ñoo gën a mën a engagé kër que góor ñi léegi tuddi ko ba waaw non non da nga naan dégg nah, kan naan góor doom bu góor léegi doom bu jigen bañatuñ ko de da nga naan wax boo amaan góor ñu jigéen jigéen ñu naan kii de rek lay jur léegi jigéen ñoo ñu ay jigen rek lay jur ñoo lay yor ñoo yor sa ñoo yor yaay yor papa yor mbokk yeeg yépp jigéen moo ëpp yërmande ci booy seet waaw moom laa lay wax ci lañ lay tuumaal mais tuuma jooju yàlla da koy àtte yàlla teel di ubbi buntu ngay dem di voyage jënd say bagage di ñëw wax su demee foofu mu ngi cagatu bu ñu la wax bu ñu la tuumaaloon mu ngi cagatu am na benn paa bu muy génn moo koy financé en fait sénégalais moo mun tuumaal nit te xamoloo nit ki dara lan la ki nga xamante ne cerveau dara nekku ci bopp bi feesul jàngoo wala sa jàng soriwul amoo culture général yow defuñu si yow dara dañ laa jur rek teg la noonu nga màgg commencé gis ñëpp di solu ngay solu gis nit ñi di jënd daal nga jënd gis sa benn xarit di fréquente sa benn xarit bu solee yére nga ne ko fii foo ko ñawloo ah. ngeen ànd ñaw commencé rek branché rek commencé parce que nee naa leen li jikko li naan du du ci ci nit lay ne du mbubb booy sol da nga koy judduwaale du mbubb booy sol nit a ngi sañse gaare otoom defar këram ba mu baax te du nit nee naa leen bii paas dañ foog ne dof yi ña ne hôpital Fana dala xel ñooy dof yi dof yi ci biir kër yi dof yi ci tali bi yore oto di dawal moom laa lay wax léegi mentalité boobu ñuy am mentalité boobu ñuy am noonu nga xam ne dañuy vidde seen esprit dara du ci nekk seen esprit dara du ci nekk loolu yow soo gisee Aïcha yore oto romb la dalay dalay dépassé danga naan lu mu ko mën a amee parce que pour yow waroo koo mën a am nit tukki ñëw nga ne pourquoi fu mu jaar ba tukki suñ te te par contre buñ ko gisee ci keneen ku ñu xamul dañ ko koy mm-hmm. absecteel saan na ci réseau yi di gis ay ay nit ku siiw tukki ñu kontaan waykat bi tukki na waykat bi sañse na waykat bi yor na oto kii jën na oto mais bu dee ku la jege ak sa mbokk wala koo fréquenté yow daf lay dépassé da nga naan non kii warul am lii warul am oto warul tukki su ko amee rek soit jaay na boppam taxawaal na ba am ko wala fen na ba am ko te or que c'est pas vrai or ka yow su génnoon motax genn ak di di di xam li xew ci dekk bi di fréquenter ay nit ñoo xam ne dañoo éveillé di ubbi sa xel yaajo lool lool moy éducation de base ah, éducation de base boko ñaké rek ñàkk nga sa lip lip lip, moy andi soxor moy am aigri té sa xam na ñu bari dañoo aigri aigri moy andi tuumalaate aigri nga dem ba nga dem ba sa vie raté ah. nga xam na yow dem ah. mënatoo rattraper la la ak année yi dem na loo ci tegaat ñu suul la loolu da ngay ñëw yow après da ngay bëgg moroom ku ndendeek yow mel ni yow doo bëgg ku dem surtout nag ñi ñu koy def souvent mën seen ay sët la ñuy mën a nekk mhm. du sax ay mbokk bu tollook yow nii de mhm. yow ko mbokk bi la koy def mat na la yaay moo la moo la moo la boot mhm. moo la moo la yóbbu école nga jàngi moo la rogganti moo la defal lépp après mooy waññeeku yow teg la bët. Mhm. fekk man na ngay gis ku ku topp naan wax dëgg man nammuma dara man nammuma dara man macha allah maa ngi ci level bi maa ngi ci lii maa ngi ci mhm. lee te yow fu ñu la fekk yaa ngi diviser pour mieux régner. yow fu ñu la fekk yaa ngi xool lu nit ki am boo namul dara dëggantaan jaay yow dara daraay kenn du la saf. daraay ah, kenn du la saf ba ngi ciy jaral ba nga ciy tuumal. waa léegi dama bëgg nga déglu ma yow tay ji da gis ñuy ànd kon ni nga ne àndandoo lu tax nit ñi ragal àndandoo mm-hmm. da ngay ànd ak nit tey maa ngi ànd ak jeeba yéene ko lu nekk mm-hmm. da nga ne jeeba man rek la bañ jeeba fu ma fu ñu waxtaanee ba tase su njëkkee su yeggee daf mooy tuumaan tey ji loolu daf fee bari nit ñi présenté la say nit nga tuumaal ko ba say nit ñëpp wan la ginnaaw toujours nga gis ñaar ñuy ànd ma présenté la jeeba jékki-jékki ngeen écarté ma yaag jeeba yéen ay ànd fekk seen relation maa ko créé après man duñu waxati samay wax après nit ñi dañuy dem a dem dem ba dañuy fàtte ni eh, relation bi ci man la joggé dañ naan rek Jeeba ak Aïcha yu ay xarit intime lañ eh, fekk ci man la joggé merci xam nga lu neex yeen say tay ji ni nit nga bolé lak nit pour liggé wala pour dara yow tay ji mu nga tok ne ma ba man dé amna sama ben càmmiñ wala sama ben mam. bu mën machallah mun na la defaral ay affaire yi nga xam ne sa wërsëg dina ubbeeku. waaw ni ñaan lu nii waa. Mm-hmm. yaa joor yenu ma fa yóbbu ma fa. Mm-hmm. ma dem sëñ bi sëriñ bi mooy Aïcha ma ne Aïcha yaa joor génn ci biti wala yaa joor jox ma numéro ma dem fa ma ne la Aïcha ah defaral ma lii de waaye yaa joor bu mu ko yëg te yaa joor moo la yenu. te yow maa la fa yóbbu. moo la fa aka bari. am na boo xamante ne maa lay yóbbu ca moom ba pare wàññeekuwaat ma gis say mbir ngi dox parce que juboo la rek ak déggoo des fois nit seetal ma man gis ma mën yow nga ñëw du la gis du la mën mhm. mu defal la nga gis man ma ñëw mu defal ma ma saraxe def yëpp du ma gis dara bu boobaa nga ne kii mënul ma yóbbu la fa man man gisuma woon dara ma essayé rek nga ne ma seet des fois wërsëg mooy tombe seetkat bi sa mën a fekk xoolal ki la defal du ci dara de suñu borom la yàlla rek a fi nekk man nga ne ma rek yaajoo doo ma gisal doo ma seetal ku ma ku ma mën a ku ma mën a seetal temps yi da damaa tëju temps da damaa umoox yooyu ak ma am jëkkër ma yóbbu la ci seetkat bi gën a bon du ma la yóbbu ci ku baax ki de parce que dama may raw dama lay yóbbu ci gën a bon koo xam ne kenn ñëpp xam nañ ne mënul man la kaay moom ma yii kii moom xalimaam laal suuf yóbbu la foofu jeeba nga dem kooku tam fekk dara la xamul jox la yoo xamante ni jox la yoo xamante ni xoola këriñ lañuy def ak ndox jox la <laughs> nga sangoo xam nga mënul da xam nga joxu la dara ah. tombeeg sa wërsëg yàlla wàccee na ko nga am jëkkër ñu may la ay million dugal la ci kër jox la oto ngay voyage dem ak a ñëw rek teg dama naan waa man kii kii moom ñoo boole ko jéem man gisuma ba pare jéem ñu ma ko booleeg moom rek affaire yi tàkk commencé nag dem ca moom laaj ko laaj coow la ni kur commencé wuli pande la benn fu mu toog dina ne ah maa tax mu am jëkkër maako yobu ci sër dina ko xé parce que ñom bëggu di la di la defal dara pour nga évoluer pour nga réussir dañuy def semblant rek lima naan tépp ci fii taffé am job indi njaay bi rek mo ne ci dëkk bi ñëppay football ñëppay football dinañ la defal mais duñu bëgg nga am teranga duñu bëgg affaire bi exploiter wu de telle sorte que yow non nga ko bëggé ñom dañuy def semblant né parce que wax nga leen dañ lay yobbu nga dem ñu nga ci dara am na ci ba da ci am ba dañuy jël nga yow yóbbu la ci kat tok xaar nga boy wone ginnaw wonay set seetkat ba loo ko gisal moom da day neubatu sëyam bi ken xamu ci dara daal moom jëkkër ji mës nañ am problème nga ne ko wa moom jëkkër ji de mo gis nga wala ñu yobula ba pare tok dañuy tok non non même même buñu togul toogul dañuy woowaat sëriñ bi ne la lo gis Sayem bi no gis nga gis ñe la wa mom da jëkëji pourtant dañu am problème jëkëji pourtant bëgg ko ah ak ni muy wax ni yëpp sama jëkër sama li tak genn nañ suñu démé sam nañ la yokk ci loo xamante ne li merci teg la table yaa ngoone débattre débat waaw loolu am na ci am na ci ñaa ñuy ànd leen dañ doon ànd yow nga jël kenn ki yóbbu ko ñu boole la ak nit nga ne ko kañ dem dañ maa boole nit kañ dem ñu ànd ci kooku ndaxante yow balaa ngay dem ndegam numéro kooku yaa ko yoroon na ko wone ko bu ñëwee fayal ko biddéewum waaw parce que fu ñu ànd moom rek lañuy tudd kenn du ma gis uh-huh. ay biddéewum laa bëgg ñu fay ko uh-huh. man gis naa koo xamante ni copine ba moko présenté waji wax ci mom ba waji ji ko ñuy genn waji dem def tak ne day tak mu foo day fo <laughs> waji waji wax ko tant de millions yim nara may xale bu jigen bi ne ko da koy indi mu rejoindre ko ci mom gañu na gañu na mal la koy defal tuumaal eppelo te yakamti yow ki dafa bax ma foo koy fowé rek ngeeron wut ngay wax waxu tak waxu jabar te araam xamalul gel bi dara ñu ngi ànd rek dama ko ñëw ànd noonu la yàqee digganteem àdduna di dox ba réew ma mu waaj nekk xale bu jigéen bi keneen takk ko ba mu fekk ko foofu ba dajeek waaja ca réew ma te mi ngi doon ànd xaritam bi ba tey ñu daje ca dëkk ba mu xas ko ba mu ràbb mu ne ko sa copine diw moo ma la may moo ma waxaat ne ma baaxoo danga nga ay far dindi nga fi ay biir di def ay bir motax tax ma reculé waat woowaatuma la ma arrêté wat projet mariage bi yeb lol tam pour lan ak ñoo ci gaaw xolal dañ lay tuumaal tuumaal tuumaal te luñ lay tuumaal yeb duñu dox ba gis ko wax ji rek ñoo fi ne dañuy dem ba di xolal ñu naan xamna ki mom du sori day gaaw ëmb tok gisuñ laak ëmb gisuñ laak ëmb gisuñ laak ëmb ñi naan mënul am doom ñi naan day yàq day tuur day tuur ay siwo yu lay tuur day planning day lii day lee araam ni kuy naan sàngara dara dara dara dara dara man damay gis ñi nga xam ne nu ñu amee fit dafa jéggi dayoo. naa moom léegi nii la ñu commencé nit ku am yaram sax ñu ne day naan ay doom yooyu mais avant. soo fi amee yaram dafa plané dañ ko defara plané dafa bañ man damay ñaan yàlla rek un jour rek yaa yàlla wàcc si suñu kaw rek ne <laughs> eh preuve nañ génn teg leen ko fii <laughs> man loolu rek laa bëgg yàlla ne dippit suñu kaw rek ne waa ko kaay leen preuve yi na génn man loolu rek laa bëgg yàlla yaa xamtul waa Sénégal yàlla yaa xamtul de yàlla xanaa moom dernier dernier jour yi sax waa Sénégal lay mujjee parce que parce que Sénégal moom lu fi nekk fii moom amul yow ngay gis tey jii yaa am na xëy Aïcha amul xëy yaa joore ngi liggéey Aïcha liggéeyul yéen a ngi toog yow Aïcha yaa ngi toog jàpp sa ñaam bu guddi jotee di nga am foo waxtaane ji yaa joor yow mii di xëy doo tal sa xëy non non yow li nga am xeeb nga ko yaa ngi jéem a lijjanti Aïcha leneen lu muy lijjanti tey ji yaa ngi jéem a ba lu gën a bon gaaw a waxal nit nit lii la duñ ci xaar duñ li nga xam rek waroo koo wax ñoo nit ki loo ko xamal sax waroo ko waxe soo doxoon ba gis nit ku nit ñaar ñu tëdd nii di def naka sudul noonu sax te duñu jëkkër ak jabar sa yoon bu mu ci nekk. sañu borom sax foofu dara ne maanu ci. maanul ñu ne la diw day njaaloo fexel ba am preuve gis ni alxuraan ne nga dem ba xam ñaata nit ñoo ko wax. cette personne ñu ko gis nga doog ko wax mais léegi boo boo boo amee jëkkër amoo droit sax nuyoo waxtaan ak laamisoo amoo droit. am càmmiñ am càmmiñ amoo droit sax <laughs> dem xew. ñaari yoon ci semaine bi wala teg la ñaari fan xew wàcc taxi amoo droit sëyul la ñuy njëkk wax waaw xanaa sëyul tuumaal la tuumaal la bitikiyee bi nga am fa soit sa benn kaye fa ngay dem moo lay jox pour say doom moo lay lebal pour say doom bu sa jëkkër kuyee nga fay ni mu la koy defaree noonu am koo xamante ba nga ca koñ ba moom bu lebee du fay butikiyee bi du ko defaral moom mooy tourné ne butikiyee bi da koy doxaan lii mënul nekk neen ba pare amoo droit dem weekend sa kër yaay boo demee weekend ñu ne fay na du lebal kenn waa am na am na jël say bagage ne tey jii dama am envie dem toog sama kër day day day day day day yokk da ngay sa wala nga nekk ci appartement ku ne xam na ne appartement mel nga nekk ci appartement soit mu am problème bu fa nekk nga gàddu say bagage ñoom booy gàddu bagage rek bu ñu gisee oto ay bagage di si yéeg sëy ba tas ñu tas loola ci saa fii tas lool nañ fi ñaata nit ñuy sëy xam naa bu doon bu doon tas yooyu rek moom moom xam naa moom ñoom dañ ko daganal ñoom kon yow yaa ngi njaaloo moom sëyatoo wala nga jàng boo divorcé lijjanti nañ kaawu lan lan mooy divorce bi lan la joteeg jëkkër ji lan moo indi lan moo indi xas la xas sa jëkkër waaw bu ñu xamee say mbokku jëkkër dinañ fa daagu dem fa merci mais nag mais nag mais nag tuuma su ñaari nit ñuy ànd ngeen xuloo ndax nat nga dem ba ci gorom tuumaal ko nee ko day njaaloo yàq ko fa wax ko fa lu nekk yàq ko fa lu nekk te jëkkëram a ngi Europe moom laa léegi léegi koo xam gëm ko dem ci gorom ci gorom demoo ci ku jigéen ki de ci ku jigéen ki la dem goro bi gëm ko ah mu mujjee nekk yaajoor yow yow lañ la moom lañ la xamal sax ju moom ngay àndal mu mujjee nekk coow ma ne Aïcha bu mu tax nga gëm ko loolu laa lay wax nee naa man ku may àndal guddeeg bëccëg ñuy fanaanandoo nga gis ma ñuy fanaanandoo ñu ñëw yàq la ci moom ci man ci moom nga gëm ko dama lay bàyyi. li ngay def nit ki ba ba mu ba nit ki jar la bàyyi da nga ciy dem ba nga tekki sa bët. parce que fii xoola kanam du kaso mais koo ko tëjal mu xam ko ay Aïcha sénégalais yor na jikko boo xamante ne bu la meree danga koy xamaa ah. bu la bàyyee danga koy xam. kooy àndal chaque jour non non non non kon nag dangaa ngaa dof même boo mënee non non nit mënul tricher 100 pour cent nit mënul tricher cent pour cent jeeba non non da nga koy xam di dof dof dañ lay jéppi ba du ñu bëgg dara xolal lulul jël paaka jam la ko xoolal mun nañu tok di wax ak yow garder sen sang froid xolal di wax ak yow di reetaan di lepp xolal fekk xoolal munuñ la supporter xamna li ma lay wax déggoo ma ne ko loolu ànd bi dafa demoon rek liñ naan liñ naan and bi mais yaay amna ñu fo amna ñu mën def semblant nak semblant bi mënon ko def à vie di and ak nit ki di semblant à vie déedéet déedéet waxeewu ma ah, ah man xam nga fa lay waxee comme par exemple nit ki jéppi la ngeen am fu ngeen daje mu jéppi la xam nga ni waxuma ay daje yi nit ñaar ñuy ànd laa waaw waaw mais ànd bi ànd bi la ànd ànd ànd nekk ay doomu nday ànd xam nga ànd bi ànd bu ci amee lu ci ñagas rek soit xola dina feeñ ci kenn gi mais xam nga ànd bi ngay wax nii déjà sax nit ñi dañoo amatul jot bi pour ànd suba ba ngoon jot loolu àndu xale la mais xam nga yenn saa yi ngeen di daje ci tuur yi wala ngeen daje dem jël restaurant dem jëli benn verre wala xam nga ngeen nekk ci téléphone bi whatsapp bi di kaa xam nga ay naan kaa kaa yu xew ci réseaux sociaux yeeg influenceuse yeeg yooyu nga ci kaa ak yooyu xam nga mais dama la bëgg a ne même avec loolu nit ki mun nga ko woo waaye yow gis nga influenceuse bi lu mu def yow gis nga lii mu ngi wax ak yow nice di la tontu mais fekk xolal am na lu mu la dencal ci biir xolam bi li nga xamante ne yaay joor loolu bu ko génnee woon ba ne ko pakk sa kaw ni mu la pak dana la muur ba kenn du gissata sa benn cieur ndax rëy wala ngeen fenn ngeen tok di waxtaan moy waxtaan ak yow nice man dama ko giss waxtaan ak yow nice di kaf di fo di rek fekk xolal fekk yow la bay mu ngi bëgga dé dee di ko masa yalla da lay masa wër parce que gis yalla dafa bëgg relation yu and ay nit ñu bëgg da ko bëgg mais yalla da lay wër man sama genre gi gis nga man suma amé luma metti man sama kanam moy sama sétu xol automatiquement di sa sama xol bu tàngee wala mu metti wala ma am lu ma la meree bul sonal sa bopp bu ñu toogee di nga xam ne kii am na lu ma téyel su ma la ko mënul wax it di nga ko gis ci sama kanam di nga ko gis ci samay tontu. moom laa lay wax moo tax boo ko nëbbee yow ñuy ànd maak yow jàppalu ma la dara bëgg la te yàlla tax yow bëggoo ma jeeba allah kulli aalin suñu borom dina dina dina ko leeral ba mu nañ dina la ko wan moom laa lay wax loo nëbb nëbb nit ki ne bëgguma la di def semblant di def semblant fii yàlla moo ñu fi wàcce teg ñu fi tamit dala koy wan dalay weer ba ci gu nar a kaam ba sa xarit bi xam ne kii jàpp la parce que yàlla bëgg ñaari laa yaa joor ma wax la benn affaire ma wax la benn affaire yaa lii may wax nii moom nëbbuma ko sax man maa dem seeti ji sama benn xarit hmm. boobu nekkuma ya, ya woon sama kër yaay maa ngi woon dëkk sama kër maam man daal maa toog dem seeti sama benn xarit yaayam dafa doon jaay ay eh, beñe ay mhm. fataaya mhm. ma dem jënd ji fataaya yi ak beñe yi ñëw toog man daal ma ñëw fekk am sama benn xarit bu ma ñëw seetsi di ma karkari ma ne ko maa ngi dem tata eh, bàyyil ba si kanam nga yóndi xale yi wala nga wala ci subaa su ma xëyee ma ñëw jox la boobu ñu may may karkaree di ma karkaree mm-hmm. amuloon weccit mun ne ma yóbbul loo uti weccit yóbbul ak yooyu demal waxee ma ko di nga xam ne ba ma sentir ni kii sama yaay la mm-hmm. ndax sa xaritu yaay sa yaay la mm-hmm. sa yaayu xarit sa yaay la ma daal di dem le lendemain gis nga yaay joor wallaahi gis nga nit sa xol bu setee ci moom yéenewoo ko lu bon doo ko def dara lu bon derrière son dos gis nga lum la def dang koy mhm. gis nga xolal ndaw sos ma dox jour bobu la ko baye ba tay ji may wax ak yow ma dox di dox suñu kër di fa di dem seen kër ba ci buntu kër gi ni ma taxaw sama benin copine mu ngi won tok mun nako sété koku li tax ma téye ko ba pipé wu ci un mot mom ak yaaji ji de ñu toog ak sama ak sama ñaari copine yi sama sama benn copine ak yaam ñu tok mu daal di ne ah, fii de la ñëw yaay ji de fii non daf maa bett fii de la ñëw ah, di jaay maanaa naan jaay ma jaay ma jaay ma jaay ma fataaya jaay ma xaw ma lan ah, di jaay maanaa waaw ba léegi fayu te ba léegi ñëwul ca ngoon ga laa fa dem ba léegi ñëwul mu ne ah, moom sama copine bi ne ak jaay maanaa gu rëy gi jaay jooma ñaaw te ba léegi joxewul ah ku toog di jaay kee xam nga ni dara la bëgg tey ñoom ñoo ma bañ a utloo weccit ne ma demal ndax boobu am na sama benn xarit bu ma seet si di ma karkare wallaahi mom la jël sédé ma tok di joy ma tok ci stade bi di joy comme xalé ndax daf ma bét ma dem sama ben xaritu salon ma ngi koy nuyu asukan lo ma ñew tok ci wetam mu ne ma jéna ba joy mu ma sax wax sama rongo ñi naan satatatatatatatatatatat c'est la première fois ma dégg nit bu may jëw bouche à oreille musuma ko dégg koku xolal mung mu ngi may dégg duma wax turam mais xamna ma xamna ko mm-hmm. suma jëndé o dama koy jëndal su ma jëndee tubéy dama koy jëndal boobu maa ngi liggéey Philip Morris yor sama xaalis lu ma jënd dama koy jëndal même amoon na benn chaine bi nga xam ne ñoo ci nduru ma am ci bu rose mu am ci bu vert lu ma jënd jëndal ko copain bu ma am dama koy yóbbu ba foofu lu ma defal defal ko ko fu ma munti dem maa ngi moom ay ànd ca laa ko bàyyi ba tey jii may wax ak yow mu ñëw ba suñu kër dégg déggatuma mu ñëw waaye yow lan laa la def lan la ak yooyu noonu ma ne ko li nga wax laa dégg yow ak sa yaay dama dégg li ngeen wax moo tax te man mhm. su ma xasee ba dégg bu à oreille sama diggante ak yow du mënati ah, nekk te du dara dudul xaritoo kese jour boobu laa ko bàyyi ba tey amul lu mu deful yaayam woo na ma téléphone lu ne ma def ko nii ba tey jii may wax ak yow. léegi waaye ah, Aïcha ba ci jànq yi da ngay gis jeeg joo xamante gis na ne Aïcha ngi ci appartement yore jànq jeebaa ngi ci appartement yore jànq nga ne xaaral ma wut lépp nga teg ko ci ay dil wut sa jànq lijjanti ba premier weer ba nga fay ko ñaari weer ba nga fay ko pour rek bu ñëpp toogee naan sama jànq bi sama jànq bi yooyu nga sama jànq bi sama jànq bi looy leen ci dugal <laughs> troisième mois ba ñëw nga am problème mu fay sa jëkkër bu la waxee boo sa jëkkër bu la ne yaa bind jànq mënuma ko nga ne ko naa ko fay te or que mënoo koo fay àdduna di dox jànq yi benn weer lañ lay muñal ñaar ba ñu wax des fois nga jël benn cinq mille dara ko ko ko bii di ñëw ma teg la ci li li ma la amee boole koog bële weer boobu ñëw tegoo mu indil la ne la ma la indi suñu waa kër nga jiñ ko sàcc tuumaal ko yow ko mënu am jànq fay jànq di nga am or yaa jël sama or yaa tubb sama ceeb yaa tubb sama lii jànq yu bëri nga koy jooy du ñëpp nag am na ñoo xamante ni moom am na ñoo xamante ni noonu la moom da leen bàyyi seen sa appartement ñu tubb ceeb yaag yëpp yóbbu chaque jour gis ko ñu kaas kaar ko bi caméra commencé am ci appartement ku nekk koy bind ci réseaux sociaux yi dama def caméra jàpp jàpp sama jànq mu tubb sama ceeb wala jël sama yëre sama yëre jëkkër mais am na ñoo xamante ne foli moo leen ciy dugal ñëpp am nañ jànq damaa war a am jànq nga jël sa jànq jiiñ ko sàcc dàq toogaat tur sa jànq nga ne daf maa sàcc dem toogaat bindaat beneen ji bu yàggee ñëpp xam say dil say say say dil loolu lépp ci tuuma ak ak loolu nu mu mettee lu mu mettee yow fayatoo ko kay bu ko tuumaa mais yaajo am na jànk yu bëri ñu ngi campé ngi campé seen patron yi leen leen ñoo xam te seen yaay xaw ñu Dakar xaw ñu dara merci wax na ko léegi nga yor sa sa mbokk jëkkër wala sa sa sa kuñ la jox mm-hmm. souvent ci yooyu lay dem nga nek sa keur sa sa jek wala nga ne moo violer dafa fekk sama néeg fekk defu la dara am ño xamantene da ngay gis sa jekeur indi fa kenn ci keuram nga nop waaj top ko top ko ci keur gi ngay jabaru ndijaayam wala dara nga top xale ba mu lay daw guddeeg bëccëg daw guddeeg bëccëg nga koy bëgg saako am na fi am na fi du fi jeex top ko toog ndax xale ba day ñew ci keur gi jantal rafet nga ba sa jekeur billaahi maa ngi jéggalu sax ci kàddu yi topp ko topp ko ba du xale bi da lay rus di la dawa dawa daw nga xëy tuumaal ko jiitu ko ci sa jëkkër ne ko moo may sàkku dama doon sangu mu yëndu ma ci duus beeg dama doon lii wala nga am doom bu jigéen kompaloog sa doom am na ñu kompaloog seen doom pour tuumaal ki ñu indi ci kër gi mu nekk fa yarluwaan ñu tuumaal ko ne da ko violé tej ko ay 10 ans 15 ans mais viol sax lañ lay ah, tuumaal. viol lañ lay buñ la la pour bëgg kër tuumaal. am lay amna ño xamné xépp nañ génnee dé lu metti lu metti pour tej la. né mo doon sàkku sama doom. ça c'est de la méchanceté pure et dure. parce que ce kër ya ko mom boudé appartement ya koy fay ya ko loué. bu dee kër la yaa ko tabax yaa ko moom koo bëggul ba mu dëkk fa moo fay dëkk koo bëggul du fa dëkk soo demee ba xam ne yow kii bëggoo dëkk ak moom mais parle à ton mari ne ko kii na génn sama kër bëgguma bu dee sa soxoraay yegg na foofu waaye mu jaral la nga tuumaal nit ki pour bañ cee feeñ fekk yow yaa bon sa doomu njëkk lay nekk sa frère sa sœuru jëkkër doomam jóge dëkk ba ñëw nekk université ñu ne ko sa kër la war a nekk pour jàngi amul néeg cité yow boo ñu bëri yaatoo duñu ñu kenn seen kër yi loolu duñ ko mën bëgg nañ seen jëkkër sa jëkkër ne la carrément maa moom sama kër sama doomu sœur la fii lay nekk dinañ dem manipule manipule ba ne sa jëkkër ba ne xale bi yàlla bu xale ba seytaane dafa am ñoo xam duñu seytaane mën a déggoo seen yaay ni seen yaay mel la ñuy mel bu seen yaay ne un ñu ne ko un plus un égal deux Amina bete bete merci déggoog seen yaay ba ñooy àndandoo kompaloo xoolal tuumaal waa ji ba waa ji ñu tëj ko ñu tëj ñu ngi fii ci prison fekk yow violé woo tey violé suba xamoo sox nu xale bi nu nu lu mu woddoo ñu ngi fii ci biir kër yi du fi jeex du fi xaaj man yàggul rek yàggul rek bi ma sama benn ndeysaan maa ngi koy nuyu ne ma ne ma man daal fu ma dëkkoon yaa am sama xarit boo xamante ni dama koo bëgg ñooy ànd guddeeg bëccëg muy ñew sama kër may ñew kërëm li nga néwon bi pass am na ñoo xam ne ñu ñaan ñuy and ñom ñaar ñuy ànd nek ay xarit légui ke bëggul and ba tok di len xaar di xol obstacle bu ndaw bu mu yaqé and bi lima ma naan nit buñ la tuumaalee ci nit demal nga lijeenti ko budé ay xarit ngeen deug deug daan and demal nga lijeenti ko su mënu lijeenti ko nak bo mën nga tok nga bay mm-hmm. mais man nang gëwuma ñuy ñu wax la ci man dara rek nga réagir ci saasi rek téye sa bopp ne bàyyi naa ko kon te ngeen ànd ay année nga xam jikkoom ma xam sa jikko doo dem nga lijjanti ko ne ko wax nañ ma ci yow lii ngeen lijjanti problème bi mais duñ ko def benn nopp la ñuy nekk mhm. kon loolu dama naan kon yow sama ànd ak yow jàppoo ko man maa jàpp mais yow jàppoo ndax booy mere nit ki da ngay dem ba lijjanti ko man ànd boo xamante ne ay ànd lu naan du xarit dañoo daje di ànd wala bokkoon bureau xam ne xamantew ñu bu ah, yàgg man loolu àndandoo soo ma bàyyee yaa xam mais ay xarit yoo xamante li naan xarit doomu ndey wala mbokk ñu bokk nga xam ma ñu xëy wax la ci man dara rek nga téye sa bopp man loolu dama naan dama naan yow kii ànduñu jàppoo ma ki, sama xarit bi ma lay wax nii daa ànd xaritam ñuy àndi àndi àndi ànd nee na ke kee frigoom yàqu mu dénk ko ay jën mu dugal ko ci frigoom nee na moom muy défriger frigoom génnee jën yi teg noonu di dugg refar doomu xarit bi ñëw di récupérer jënu yaayam tombe kële mi fa gis leen mu ñëw mu jox ko mbuusu jën yi mu dem xam ba mu demee ca kee lu mu ko wax mu ne ko yow di de fala sa doom ji dafa la ma fekk muy jël sa jën yi waaye da daa jël jën yi mu ne da ngeen mën a da mën a dénkaane soof moo tax it moo tax it jën yi foofu la leen ko tegal ci biti ci biti la ko teg heureusement sa doom ji ñëw sa doom ji yaa yegg fekk jën yi génne na ko ca biti ne rek ne doom ji foo fekk jën yi yow doom ji ne ko yaay man kay ci bitti la ma ko joxee man ko bi ñu ko teg ci table bi foofu te kii da doon nettoyer frigo bi génne ko pour dugalaat jën yi eh rek kële ne ko ah loolu la def pare na ci noonu mere na kii. xarit mere xarit bi nee na ñuy dem xew jël siw ko. mu gis mu changé comportement ci moom mu dem fekk ci xew benn xew mu fayee ko ba kenn mu ne waa qu'est-ce qui lu xew nee na ma ñëw sama kër summeeku fekk ko ba këram ñëw laaj ko ne ko dama gis nga changé ci man ak yow fi ñu jaar yëpp lu xew kooku tegal ko li ne ko lii li nga ma def moo ma metti dénk la ay jën nga naan damaa mën a dénkaane dama soof damaa lakkale mu ne ko man mii wax ko lépp ne man dama doon déchiffrer sama frigo wàccee jëni pour pare nettoyer dugalaat ko ci biir mu ne ko diw moo ma ko wax ñu dem taaj jëli ji diw indi taaj ko taaj ko ci ay magum jëmm taaj ko mu rus ba mel ni ñett dërëmi ñeenti nit war a séddoo ah xam nga dina am ñetti dërëm ak ñeent ñeenti nit di ko war a séddoo xam nga dina am ko am xam nga xam nga loolu dafa xam nga loolu mooy mooy manqué ñetti dërëm ñeenti nit mënuñu koo seddoo il faut am ko dul am il faut am ko manqué noonu la waye dee ñu weer ko bu ñëpp doon def noonu kenn du tuumaal sa morom bu doon ku ñu tuumaal nga dem lijjanti kaa bi mais damay am fulla nga am fulla ma xool la nga mere ma ma ne ah jeeba daf may mere ëpp ma fulla moo xam fu mu xam na jëm moo tax relation yëpp relation yëpp yàqu li tax tuuma di gën a sax di dem loolu dëgg la yaa joor li nga wax euh, euh, bu dañoo war di dañoo war bu ñu nit kii bu ñëwee wax am na ñoo xam ne loo leen wax ñu ñu xëcc ka leen ko wax nela la kaay am na ñoo xam ne su ma la waxee dara ne la Aïcha wax lii dangay bàyyi ba ma toog soit nga génn sax woo téléphone Aïcha ne ko Aïcha daw si sama kër Aïcha ñëw nga ne ko toogal joor ñëwal yow kat ah li nga doon wax ci Aïcha Aïcha ngi nii bu ñëpp doon def noonu mais ni ma la wax Sénégal maquillage yi moo bëri ak samblan beeg ni ñuy coiffé décor bi moo yàq lépp lépp lépp franchise boobu amoon bu ñu ko continué woon ba léegi tuuma doot pourtant joor am nañu franchise noonu xam moo tax ma loolu tey jii kilifa ku ci mel ni kilifa kilifa Barthélémy Dias soy dem yalla baxna ad at ñëpp ñuy ànd ak ñoo xam nañ ko soy dem na nga xam bu baax li ngay wax ak mom ndax bo demé nee ko diw mo wax li ak li ak lii tuumal ko ci nit bu diw toogee da lay ne diw de ba mu ñëw ci man nee la li ak li ak li ak lii eh. loolu moo tax képp ku muy am nga lu tax Barth sañ loolu lu ma wax la am lu tax ta sañ ko di mm-hmm. ya jor di wax ni xam nga lu tax du yombaté lu tax man suma ñëwé ci yow ne la jor li jor li yow lu tax doo ma mën a parce que maa yow dañoo yag tok ñu xas jor donc yow doo ma mën a woo doo ma mën a woo doo ma mën a taaj teesante boo ma taajee teesante ci lii ma ne la la nga waxoon ca lële donc xam nga yow doo am fit bi waaw ñëpp ñëpp ay kaa fii parce que ñëpp ay kaakat lañ parce que li li waral loolu mooy ñëpp ay kaakat lañ loolu moo tax ma ne la tuuma yegg ci nekkul ci jigéen ñi kase mm-hmm. loolu moo tax ma ne tuuma ni ci jigéen ñi kase mm-hmm. même góor ba ci ba ci góor ñi dañ koy def da ngay gis sa patron yow yow góor tey ji sa patron kenn ki day respecté liggéeyam toog day liggéey yow yaa ngi dem ci patron ku dem di di tuuma di ko yàqal moom te moom mu ngi liggéey liggéeyam. waaw ba ci bureau yi ba ci bureau yi. tey jii ba ci kilifa yi da ngay dem ci kilifa yi di ñoo di kii tey jii ku ci mel ni jaas doo wax ak moom soo ñëwee toogaa dalay nee ne diwoo ma wax moo tax kenn ñemewul wax dem ci moom di yóbbu turu nit. parce que moom du toog du toog di xas sa ci yaay joor di xas yaay joor ci jeeba loolu loolu ki nga xamante ne moom ki nga xamante te looloo jafe nag. dafa jafe loolu looloo jafe bureau yi léegi koo wax mun la sama bureau de moo xëy waree xëy liggéey sax damay stress billaahi ndax bureau ba léegi bureau yëpp a tas bureau yëpp a yàqu bureau yi bureau yi nu mu neexeewul bureau yi ñoo dàqoon kër yi merci tey ñu feneen la ci patron bu subaa ñu ne patron bi kii la jël bu subaa ñu ne ki des fois ngay sëy sax ne ci bureau ñu sosal la ne daa daa am far patron bi patron bi heure bu duggee ci bureau am na lu ñu def boo changé oto ñu ne patron bee la ko changé moo ne ci bureau yi yàq la ba nga yàqu ba yow da ngay da ngay préférer démissionner jóge fa te li ngay daw ci bureau bii bi laay fa nga moo fa ne ndax àdduna bi moo bindoo noonu li ñuy ñaan rek mooy yàlla taxawuñu bu baax a baax a baax defar Sénégal defar ndax ñun mënuñu koo defar dañuy wax rek suñu borom gis ñu daal di gis ni ñuy waxee ak yéen bi ñu am mu dimbali ñu ci ba yu bëri changer mais ñun tooguñu fi pour changer kenn dañuy wax suñu xalaat suñu borom jàppaliñ ci waaraate ko ci war nañ ba sonn suñu oustaz bi rek da am empêchement mais dañu doon indi ustaas da am empêchement Cheikh Diop ñu ko doon xaar mais dafa am empêchement finalement ñewul mais naroon na ñew waxal ñu lu alcorane wax ci touma mais ya jor xara ñun ñii jang lu bari rek amna lu ñu xam lu lu yalla wax ci touma ak lu yalla wax ci sos xana xamuloo lo fekk kep kuy sos kep kuy toumal mhm. yalla neena do doo gudd fante do am do am wërsëg. te eh. ci xale lay commencé de théâtre nañ ko fi ay xale yoo xam ne xool dañuy nekk am ay cinq di fen fen yu rëy yoo xam ne dañuy toog di ràlli ràlli di waxtaan di ratatati gone gee ngi toog kenn du ko ne jógal ay sa pap bu ñëwee wax ko lii surtout ñaari ñaari wujj tuuma am na ci ba yow Aïcha merci alkeelee yow tey kan moo fi ñëwoon waa ci biti lan la ñu wax kaay tey lan la ñu wax gone gu ndaw ñu lay jàngal loolu ngay toj kër gi di toj dëkk bi di màggat ak ba ci ñuy wujjee yaa gis ku tuumaal wujjëm bañ fase ko ndax rek góor mhm. te dara jaru ko sëy yàllaa ko santaane yàlla nee na sib naa sax tas mhm. maa ko daganal mais bugguma ko maa sama kuy yàq diggante yàq relation bëri na ci ay wujje tas am ñoo xam ne waxuma la duñu sax wujj sa ay mbokk rek ñëw rek tuumaal la sa jëkkër tas sa sëy te sëy yi ñuy tas mooy sëy yi am teraanga sëy bu sonn bi nga xamante ne yow benn mat laa nga am boo xëyee fóor sa ñaar darab di ko awante ñoom li jëntoon duñ tas sëy yooyu sëy yi ñuy tas mooy sëy yi am teraanga ah. chaque jour nga changé or takki or jëndi oto voyage dem ak ñëw sëy yooyu la ñuy tas tuumaal la sa jëkkër te sa ay mbokk lay nekk ñooy dem wala sa ay xarit yooy àndal parce que ki lay yàq mooy ki la xam ki la fréquenté mm-hmm. ñooy dem sa jëkkër la nga waxoon ak ñoom temps xale sax dañ koy sulliwaar wax ko sa jëkkër moo tax léegi ñëppay nëbbatu kenn waneetu sa jëkkër sax faf ndax làqatu nit ñi làqatu nañ ba nagam nit ñi nëbbatu nañ goiatre goiatre léegi ki ya ko doon joxe ay stress ak ay loola metti nit ñi goiatre bi léegi xam leen lu leen ko jox parce que nit ñi dañ daan wax nga am lu la metti ak say soxla ak say ki ma ñëw Aïcha temps njëkk ya suñu maam yi da ngay dem ci sa xarit bu la ja intime nga dem toog ak moom ndeysaan wax ko li la metti sa sëy kenn du ko dégg wax metti sa kenn du ko am ñu lay taxaw ci sa njaboot dara du ko dégg sa njaboot bu dëngee sax am sa xarit booy àndal jubbantil la sa njaboot muy naan tux yaa mbaak yëpp ñu dindi la ko duñ dox ba dégg ko maire yi dañ daan partagé dañ gudd fan dañuy partagé te doo ko déggaat mais fii sañoo am sa benn problème bu ndaw ndawa ndaw a naan sa xarit maa ngi ko koy wax xalaatoo ko booy wane ginnaaw wax ja da lay toppaale nga gestu ne wax jaa ngi nii Aisha, Aisha, may ma ma ma daaneel fii dëkk bi xam fi am man ci man li ma gis mhm. ñun ñëpp dafa mel ni àdduna yëpp dañoo taxaw ci stade bu mag ñun ñëpp ñu taxaw mhm. ñëpp a ngi taxaw kenn wéetul waaye au fond ñëpp a wéet ndax koo dendal ñeme woo ko mhm, dañuy nekk groupe ñun ñëpp taxawandoo waaye ñun ñëpp ku ci nekk dangaa wéet ndax tout le temps ki dafa bëri mbetteel tuuma daal daa rëy daal tuuma mën nañ ko def ay émission émission dafa yaatu parce que waaw parce que yàq na Sénégal daal yàq na àddina bi dañuy wax xam naa waxtu bi xoj nañu li des bëriwul de wax dëgg yàlla xanaa ñu nuyoo nuyoo bu gàtt rek kii tàggoo tàggoo bu gàtt jeeba ga eh, tàggoo mbër tay du am tay tàggoo mbër du am tay luma noro nuyo bele bële sax gisoo dama ko jël yeb nuyo ko tay nuyo wuma lu beure wa donc ma ngi len di ma ngi len di nuyo ma ngi len di eh, ñaanal di len jéggalu budé wax nañ fi luñu warul wax mba ñu wax fi lu fi metti nit wala dara ñu ngi jéggalu di ñaan yalla nañu yalla soppi yalla nañu yalla yaatal yalla nañu yalla may guddu fan wër gu yaram wër gu wër la fal ñu ciat musul ñu ci lepp luy loré Euh, maa ngi ziar ñëpp di nuyu di nuyu ñëpp di leen waxaat ngeen dem abonné ji mm-hmm. abonné leen ci seen média mm-hmm. seen média TV abonné leen foofu chaîne YouTube la ngeen di partager di amee waaw man maa ngi tàggu ñëpp mm-hmm. di tàggu di tàggu waa seen média émission bi mën naa ne tey dafa neex dala dafa alaa daw waaw parce que suñu émission bi daal daa yaatu parce que ñu bëri ku ci nekk rek am nga ci loo ci mën a wax mais maa ngi gërëm ñëpp di tàggu ñëpp waaw di leen ne ba semaine bii di ñëw incha allah. incha allah xam naa foofu la ñuy doxee tàggoo rek man nag may may bëral loxo rek bëral nuyoo ki ma solal di Gandiol na bu Dieye nekk ca monument Grand Yoff numéro am di 77 013 48 72 di nag sama rakk joo xamante ni sama mag ju baax loo xamante ne lu ma sol moo ko ñaw yàlla loxo bi wér. di nuyu nag Eva Déco nga xamante ni mi ngi ci kër Mbay Fall def ay décoration murale yu rafet yoo xamante ni dinaa ko indi fii ci plateau bi ngeen gis ko te cherul yu rafet te yomb. Eva ko nekk ci kër Mbay faal doomu ndeyu Ñima Camara numéro am ak Awa Camara numéro am di 77 341 89 50 yu rafet lay defar tuuma nag xam naa fi mu toll nii moom xanaa ñu daj dëkk bi rek daal di koy tëjee fii mais li ci des sax moo ëppaat mais fii la ñuy mën a yem ak yéen incha allah. ba eh, yaa jor complexe Babia jox nañu ay yére. ah, ah jox nañu ay madame Gaye Oulay jox nañu ay tissu mais empêchement moo tax jëlu jiw ma ko woon na ma. nee dafa bëgg ñu ñëw ko defar ba mu baax. jeex na kontaan nañ ci yow complexe Babia madame Guèye ñu ngi kontaan ci yow yàlla na yàlla yokk bu baax a baax a baax kontaan nañ ci tissu incha allah incha allah gaawal ñëw di teew fii incha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax yàlla nañu yàlla dooli jàmm dooli ñu sutura yaatal ñu baax a baax di leen wax ngeen abonné aimé commentaire di ko partage bu baax a baax ñëpp mën ci jot. di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp ak suñu téléspectateur waa seen média di leen wax au allah jaa ngeen jëf